asalaamaaleykum sëriñ bi maa ngi lay nuyu eh, nuyu bu gën a sell ci nuyoo yi di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides di ziyaare sëriñ si ak taalibe yi fi nekk yépp di wax ne sama xol sedd na bi ma ñëwee fii ci kër sëñ di célébrer màggal كون نك ماغي لاي زيار دي واخني سما خول سدنا بما دوغي في كير سيغ توبا لما كان واخي بس بو نيك سيغ توبا موي سما لب ndaxte kenn réeréwul mbir ci réew mi ne man Malick Gakou alalu Sëñ Tuuba kenn réeréwul mbir ci dëkk bi ne man alalu Sëñ Tuuba la ba mu jeex tàkk ndaxte lu ma ne ak lu ma doon rekk Sëñ Tuuba ndaxte dama nekk jirim nekk baayo sëñ jaañe buusa di ma ubbil xabru sëñ Touba may ñaan sëñ Touba lu nekk la ma doon ñaan sëñ Touba lépp sëñ Touba may na ma ko kon nag moo tax ma ne man Malick Gakou alalu sëñ Touba la sëñ Touba nag bésam bii mooy benn bés bi nga xam ne nii ci la wooyee jullit ji pour ñu jàppale ko ci lii nga xam ne nii moom la ma dimbale ko ci borom bi moy lu yëkëti l'islam moy lu yëkëti diine moy li tabax doomu aadama kon nak bés bu mel nii bésu ñëpp la ndaxte liggéeyal na yàlla ba te wooduwul kenn gëstuwul kenn lu dul kaa leen ngeen jàppale ma ci li nga xam ne nii moom laa dëgmal ngir suñu borom. kon nag sëñ tubaa mooy lépp bu ñu nekkee alal sëñ Touba nag màggal jot ñoo fi war a jiitu kon nag sëñ bi ñu ngi lay jox suñu ziar di ñaan yow nga yàgg fi te wér may fàttali ne aussi sa waajuru baax wa sëñ Abdou Khadir ba ma nekkee étudiant. noppaloon jaaxle lool sonn lool ñëw ci seet si sëñ Tuubaa fii la ma sëñ Amdi Fall yóbbu ci moom sëñ Abdou Khadre jël loxoom teg sama bopp ñaanal ma ne ma demal ci kaw rek te ba ba léegi ci kaw laa jóg kon nag ku yaakaar sëñ Tuubaa sëñ Abdou Khadre ñaanal la waa Touba ñaane la ci sëñ Sidi laa jóge léegi moom it mu ñaanal ma ñu jël ñaan yooyu yëpp teg ko ci loxo sëñ taxaw bi nga xam ne nii tey jii moo fi toogal sëñ bi di ñaan lii nga xam ne nii moom la sëñ bi dëgmaloon jëmale ko ci suuxat diine suuxat Sénégal defar askan bi yàlla na yàlla mottali yéen jooju kon nag maa ngi lay gërëm di la sant. ci sama tour ak tour délégation manal yépp di ñaan yalla li nga xam ne nii la seigne Touba deggmal pour ñuy célébrer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla suñu borom ñu koy fété at yu dul jeex té bis bu nek rek dakk sa morom ci yoon bi nga xam mom la seigne Touba tracé pour Sénégal ma ngi lay gërëm di la sant jërëjëf mbak mbooloo mi sëriñ bi mu ni mi ngi leen di nuyu yéen ñépp ne mi ngi nuyu alaaji maari gàkku ak mboolem délégation bi nga àndal bépp ne ñu mën cee ràññee sëtam bii di cheikh Mouhamadul Mourtada ak sëriñ Xaadim Buso ak mbooleem kat Mbakke ñi nga àndal ñépp ne mi ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant di la gërëm ne lii nga fi wax ne nii nga ko waxe nga koy waxe ci néeg ne yàlla def na dig sa digg ak moom dangeen ngeen a wëllëre bu yàgg nga wax ko sa digganteeg Cheikh Abdoul Khadir mooy seere sii nga wax léegi ne sëñ galas sa sëriñ sëriñ Gédé ma sa sëriñ maamam sëñ Mbàkke Bousso mooy nijaay sëriñ Abdul Xaadir moo ko yar kon li nga doon ci fii sëriñ bi ne xam na ko ne wala rek itam sàmm nga ko bu baax ne ba nga ko fasanteeg moom ba tey ne gën nga koo jàpp yëg na jàpp gi nga ko jàpp ak ni ko fonkee moo yow tam ñu ngi la koy jàppal bu baax di ko yeesal bu baax di la ñaanal sëriñ Tuubaa mi nga xam moo tax yàlla na la nangul bu baax defal la gi nga ne bu baax defal la ndimbal bu baax nee di fàttali ko it nag teraanga joo ko mas a defal ne booba sax fekk na yow jógee nga ci nguur gi nga ñëw këram ca Ndakaaru fekk mu di ko doo a sanc ba nga ñëwee tombe courant bi coupé nga ne groupe bi moom maa koy def addiya ba fi mu ne groupe baa fa nekk ne kon bu xëyee gis groupe bi rek xelam nekk ci yow ndax jëf moom du réer borom ñu ngi lay sant bu baax a baax yeesal wala réew bu baax a baax ne di la xamal ne jàpp na ko bu baax a baax ne këllëre moom boo ko fasanteeg nit rek na nga ko jàpp bu baax ndax sunu boroom da koo fonk ne nit kenn du àndeeg moom ngir pos walla lu ko nuru ndax boobu ànd dafa gàtt moo tax kuy ànd ak nit dangay ànd ak moom ngir yàlla te ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ñaar buñ di ànd na yàlla tax ne bépp ànd boo xam ne yàlla rek a tax mujj ga mooy alhamdulilah waaye bépp ànd boo xam ni yàlla taxut mujj ga mooy inna lillahi rek kon nag loolu ñu ngi koy jàpp bu baax di ko sant bu baax di la gërëm di la ñaanal bu baax itam yàlla jàppale la may la taxawula te dimbali la jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ñu tàllal amin amin amin amin